que c'est pas assez bu doyul mën nañ ko dolli il faut reconnaître que pas assez il mais nous demander de faire des éditions spéciales parce que on a on a arrêté des jeunes vous dites souvent détenu politique qui n'est pas détenu politique est-ce que des yu ñu arrêté ñuy saccager le magasin débat non voilà. Ah, que des gens yu yu yu yu yu infiltrer une manifestation di commettre des actes de vandalisme bëgg a euh, euh, empêcher aux citoyens de de circuler librement est-ce que ñooñu ay détenus politiques léegi ma laaj dara ah. ma laaj dara est que une presse responsable doit défendre des bandits infiltrés dans une manifestation di def seen sale besogne di lor ay sénégalais di di di yàqal ay njabootu sénégalais est-ce que ñooñu mën nañ leen considérer comme des détenus politiques. léegi c'est une question ou une affirmation. non dama dama lay laaj est que ñooñu mën nañ leen. considérer comme des détenus politiques ah. la est-ce que Bassirou Diomaye Faye parce que dama lay citer te moo la jëlaloon tous les détenus parce que Pastef xam na tous ces détenus assistance juridique bi ci waroon à l'interrogatoire de flagrant délit def na ko assistance sociale bi ñu ci war a def mu ngi koy def à travers ces structures nationales et locales. alors euh, ba bàyyi ma non. Euh, bu ma jox la signification détenu politique dinañ déggoo. un prisonnier politique yow yaa ngi posé question. xaaral jox la non xaaral ma jox la ñu déggoo. c'est jox la xaaral ma jox la ñu caractériser lan mooy détenu politique. un prisonnier ou un détenu politique est une personne emprisonnée ou en résidence surveillée pour des motifs politiques qui font eux-mêmes l'objet d'évaluations subjectif pour chaque situation. Est-ce que Bassirou Diomaye Faye est un détenu politique? Oui, oui c'est un détenu politique. C'est-à-dire ce que ah. Bassirou a écrit su bokkul woon Pastef nekk responsable politique kenn du ko ci jàpp un détenu politique loolu du débat parce que bu la neexee nga distinguer ko selon ñaar yëpp te boo ci boo ci def ñaari sens yooyu nga koy firee boo ci jël naar naar nga gis nag si li ma doon wax sànq parce que kenn ki moom mu ci génnee un détenu politique moo ko jël si ñaari sens premier sens bi mooy acteur politique bu ñu topp rek c'est un détenu politique sens boobu mënul wëy acteur politique bu demee nax lekk xaalisam c'est pas un détenu politique mooy koo xam ne appartenance politique am moo tax ñu koy topp. ou ses idées politiques ou ses opinions politiques. maintenant appartenance wala opinion politique am wala posture ay ambition politique am bu dee moo tax ñu jàpp ko dans tous les pays où détenu politique am na mais pouvoir bi xanaa coordonné dana laa jàpp pour tes appartenances politiques ou pour ton idéologie ou pour tes idées pouvoir bi toujours dina indi benn couverture juridique toppee la dara. donc loolu moom il faut ñu ñu ñu d' accord. ci mais da ngeen war a dissocier non non mais vous avez vous avez quand même intérêt à à à ne pas appeler tout le monde détenu politique. li ma li li dafa am loolu laajoon lu am lu am solo ci ñi infiltrer manifestation loolu nga wax man duma ma basé wu ci ay infiltrer nañ fii infiltrer nañ fële gis nga tey képp ku woote manifestation opposition ñi infiltrer la yow yaa njëkk am intérêt ci ñooñu ñu xam leen. topp leen traduire leen parce que sa yow lay lor parce que bu ëllëgee pouvoir bi ne menace de trouble à l'ordre public fii manifestation yi ma fekkee man bi ma xàmmee wee ba léegi wax dëgg yàlla mu ngi bëgg a mat fukki at bépp manifestation bu ñu autorisé ci dëkk bi gisuma benn petit débordement bu am ndox sax dañ koy for foofu noonu yóbbu ko bu paree manifestation bi jeexee boo fa rombee bu ñu ne woon fii amoon na tel temps de personnes yi fi dajaloo doo ko gëm boo gisee image da ngay naan fii dara muy benn beneen bi mooy dama lay citer exemple yu dul jeex muy Lamine Niass tiktoker muy Diop Taïf muy Ibrahima Gueye Ndeye Leer muy Waly Boña bi nga xam ne da doon dox nii juge juge dafa oto président Ousmane Sonko la doon dawal ñu ñu xëy jàpp ko après def ko sous bracelet boo jëlee list bi ba mu jeex muy Pape Fara Ndiaye muy Ousmane Silla muy keneen ak keneen kenn bokk ci cas yooyu parce que c'est des militants réguliers de Pastef affichés dans les réseaux sociaux nit ñi di leen gis ñu am titre di publier seen i mbokk xam leen ne Pastef nañu bokk activité Pastef bu am ñu def porte à porte sol seen t-shirt sol seen lacoste ñooñu dinañ infiltrer kuy infiltrer xanaa di nga làqatu. on parle pas il faut arrêter avec on, ça. on ñoom ñoom. on parle pas de militants identifiés. non non cest ku identifié wu ba nit ñi xam ko. buy dem ci manifestation boo xam ne. dañu ko woote. Ah, ah, on parle pas on parle pas parce que nit ñi identifié nañu ko. encore une fois Lamine dina est-ce que Lamine ñu xam dina dem di toj bus. encore une fois. on parle pas de on parle des gens identifiés. non ce pas des infiltrés dañu ko jàpp parce que da toj. alors je te man je te pose d'abord je veux que que le ne soit pas aérien je veux que le débat soit pratique concret. alors infiltré ak ñuy def acte de vandalisme. ce ne sont pas des gens identifiés connus et reconnus dama la ne détenu politique dafa am ak bandi. léegi kon yow yaa ngi évolué léegi yaa ngi évolué. non xaaral c'est-à-dire li nga bëgg ma ak yow. mais laisse-moi parler su ma d'accordoon ak yow. ma xam naa fi nga parce que am na ñu ñu jàpp am na ñu ñu jàpp pour des délits d'opinion politique. et de position. voilà et position. et d'acte non am na ñu ñu jàpp pour des délits d'opinion politique. Mm-hmm. am na ñoo xam ne jàpp nañ leen parfois man journaliste je me demande lan lañ leen jàppee Waly Diouf Bodian xaw ma lan lañ ko jàppee El Malick Ndiaye lan lañ xaw ma lan lañ ko jàppee voilà Bassirou Diomaye liñ ko jàppee est-ce que jar na jàppee nit est-ce que mérité na autant de de de de temps de privation Pape mais mais mais y a des gens mm. quand un Sénégalais se permet d'appeler au meurtre d'appeler à l'insurrection d'appeler à ce que ñu brûler une brigade de gendarmerie quand un Sénégalais se met en porte-à-faux avec les lois et les règlements de ce pays-là ce Sénégalais-là mu bokk Pastef mu bokk APR mu bokk Taxawu Dakar fu mënta bokk dañ ko war a jàpp et c'est pas un détenu politique dama lay applaudir waaw ah. gis nga tey sonn naa lool audience flagrant délit laa jóge laa jógee 38 sénégalais yu ñu gis sama kanam tey kenn gënu ku fi def lu dul yoon dañu la war a sanctionner loolu mooy dëgg da nga ne quand un sénégalais fait un appel au meurtre xanaa boobaa di nga wax ne Ahmed Suzanne Camara. il est dedans Ousmane Sonko dañu ko war a rey. il est dedans. benn waaw bàyyi bàyyi ma yëgal rek damay def un récit xanaa boobaa dinañ wax ne bi fi ab nit taxawee ne wal fajiri dañu ko war a dem taal man loolu su ma ko waxoon tey wóor duma du ma ñibbi sama kër. je suis d'accord waroon nañ ko xanaa bu fi nit taxawee tey jaxasekat boobu noonu xaw ma jaxase la sant xaw ma leneen. mu ni am na ñoom sax seen tur mépris total. bu taxaw naan ñii manifester ñi ñu war a delloo seen kër dañ leen war a delloo ñu war a tëj nañ du ñu war a rey dañ leen rey Sénégal abalu nañ fi peine de mort kon rey bi kay c'est une c'est une exécution extrajudiciaire quand un journaliste se permet de coucher sur son papier wax ne le yaa xam Keïta bi àtte woon dossier Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang en première instance que voyou la alors que muy Bassirou Diomaye fay muy keneen ak keneen dañu leen topp parce que dañu jeter le disque sur l'institution judiciaire donc rigueur bi nga am xol bi nga am métit bi ngay waxee rigueur bi ngay waxee ak fit bi ngay waxee ci sénégalais yi toj oto jàmbur nañ leen sanctionné d'accord naa ci ak yow parce que man samay samay nit ak ñu ñëpp ku nekk am ñi am nañ oto ñi am nañ kër ñi am nañ place samay mbokk ay commerçant nañ donc loolu c'est pas un problème même rigueur bi ngay am ci ñële bu ñu ko defee te boobaa dinañ xam ne defkat yi xam nañ leen ñiy trafiqué faux bi xam nañu leen mais di saaga magistrat yi duñ jël décision bu leen arrangé xam nañu leen ñi toog ci conférence de presse naan président Ousmane Sonko dinañ taal këram nit ñi xam nañ leen ils sont nit ñi ils sont mais xam nga dara fekku leen ci loolu nag wuy ma loolu nag mënul am ci réew ak risques yi muy am ci réew mi yëpp nit ñi ñu ko sànq ñu ko dénoncé ñu toog ci côté bële ay nit bu ñu génnee manifeste ñu ne c'est des casseurs c'est des ak c'est des personnes qui commettent des de vandalisme ne nañ leen mate. non mais c'est pas comme mais ça. xam que encore une fois loolu du lu fi bees de. le Sénégal tey lamb lamb rek lamb rek su fi amee football muy match équipe nationale muy nawetaan dina am ku ci laxasu sàcc téléphone portable dina am ku ci laxasu këf saabu jigéen dina am ku ci laxasu agressé nit. mais xam nga le problème taxul événement yooyu ñu bëgg a questionner la la la la quintessence ou l'opportunité ou même la pertinence wala la légalité de les de de faire ces nga war a yóbbu bi. pourquoi on en arrive à des Sénégalais comme nous comme nous di poser yenn actes yooyu noonu su boobaa dinañ xam ne amul benn dëkk boo xam ne c'est déplorable nag gouvernance yaa ngi koy jaay teg ci jaay doole lu dul ne loolu lay jur comme résultat loolu xanaa ñu ñu toog baay la te loolu kenn souhaité wut Sénégal di mel noonu mais nag. xam nga tey doxalin bi moo indi loolu. donc yow boo boo boo alarmé wul ci source yi. ci cause yi nga bëgg a wu ci conséquences xam nga mais franchement doo régler xam nga euh, am na boo boo gisee aujourd'hui la justice sénégalaise est, est mise en mal wala elle est soupçonnée ce problème. de elle n'est pas soupçonnée non ce problème d'équité là se pose c'est-à-dire ni ñuy xoolee un citoyen fu mu mënta bokk bu defee délit bu waxee loo xam ne dafay euh, mettre en mal la cohésion la sécurité euh, la stabilité de l'État. mu bokk fu mu mënta bokk dañ ko war a jàpp et je vous le concède il des gens qui son proches du pouvoir qui sont à la paire yoo xam ne ils ont fait des déclarations qui méritaient une interpellation et qui circulent librement et ça tout le monde dañ ci nit ñëpp nit ñëpp. dañ ci ay agresseur ak ñëpp yore semis ji. yow Sénégal mos na toll foofu. nit ñëpp dañ ciy d'accord munuñu fii parce que moom nee na xaritu doomu président la au nom de la munuñu d'accord politique nga bëgg a taxaw di compromettre les ciments de la stabilité de ce pays-là bu ñu la jàppee ñu ne yow détenu politique nga détenu politique c'est quelqu'un qu'on prend pour ses opinions pour une déclaration malheureuse pour déclaration bu mu def Euh, boo xam ne sax la la la la le fondement et subjectif mais doctrine politique du euh, du du koo xam ne dafay dafa appel à l'insurrection du koo xam ne. lan nga tudd la mooy insurrection. da appel à xamoo luy insurrection. yow maa yow yaa ko tudd. vous qui êtes en euh, spécialiste en relation. internationale waaw lan mooy insurrection. quelqu'un qui appelle les Sénégalais à sortir et à s'en prendre aux institutions. non non c'est pas, c'est pas ça l'insurrection. moo tax ma laaj la ko xam naa ne mën nga bañ a xam réponse moo tax nga waxee. non mënuma mën naa bañ a xam non si parce que gisuma ko fi def ko opposition. non xam mais tous les jours. parce que ni nga ko définir du noonu. c'est pas ça l'insurrection mooy. tous les jours déedéet c'est pas ça l'insurrection. insurrection mooy wax ne nañu daaneel nguur léegi. mais sans prendre aux institutions. déglu ma déglu ma tous les jours déglu ma déglu ma su fekkee loolu bu amee dañu war a dañ leen war a sanctionner sévèrement ki fi taxawoon ne bu président waxee ne gagné na dinañ ko déloger. kooko kon du nekk président konoon tëj nañ ko ci kaso bu yàgg. non waxuma genre tëj appel yooyu. non si ce sont des gens qui s'organisent non non non président bu defee lii dinañ ko déloger il faut qu'il sache que nous sommes capables de mobiliser des centaines de milliers de jeunes pour aller le cueillir du palais. sa peut c'est un appel à l'insurrection te Macky Sall moo ko defoon 2011. ça peut il faut le dire ça ça pouvait mériter. président wu Sénégal tey nga benn jeune bu benn poste bu xaw a njuru loolu rek nañu ko traité de terroriste tëj ko si kaso bi. mériter. ça une mais à l'époque à l'époque l'opposition allait ruer dans les brancards pour dire que dañoo bëgg a museler un adversaire politique loolu moo tax les hommes politiques